taxaw seetlu bi ñuy def tey dafa ñeel maître El Hadj Diouf ak ay kàddu yoo xam ne moom yëkkati woon na ko maître El Hadj Diouf jamono ji nga xam ne Adji Sarr ak Ousmane Sonko coow li bëri na woon. dañ ne woon kii di aji Sarr dafa ëmb ëmb boo xam ne depuis plus d'une année sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar gisuñu lenn waaye ndekete yoo moom El Hadj Diouf yëkkati na ay kàddu ne. ëmb boobu nga xam ne moo ñeel kii di Adji Sarr prétexte la woon ngir daal di koy protéger mu nekk kawteef mu nekk lu doy waar mu nekk loo xam ne war nañ cee jug taxaw ci ndax nekk na scandale bu rëy rëy boo xam ne il est temps kii di procureur de la république daal di def ab autosaisie par rapport ak mbir mu ni mel aji Sarr daa ëmb alors que ëmbul Adji Sarr jiñ na Ousmane Sonko viol alors que Ousmane Sonko violé wu ko par rapport ak rapport médical bi nga xam ne moom la ñu jot loole lépp bu ñu ko tënkee nga gis ne kat Sénégal gii war nañoo jël li nga xam ni moo di suñu ab justice ñu forcé ko à ce que mu leeral dossier bi dox ci diggante Ousmane Sonko ak aji saar tey bu ñu demee ba ay mensonge national di am ci mbir mu ni mel nekk na lu doy waar noonu lañ ko mën a waxee ngir mën a wormaal kaddu yi waaye nag Sénégal gi li fi am doy na waar lool xale bu jigéen bu woote ci ab émission télévisée ne man li ma tuumaal Ousmane Sonko Sénégalais yëpp di ko dégg te ba tey ñi ngi bàyyi mbir mu ni mel muy avancé bàyyi ko nii dara leeru bu ci ci bopp Sénégalais yi nekk na lu doy waar loo xam ne war nañ cee mën a jug daal di ciy taxaw ki nga xam ne nag moo di Ousmane dem nga mu demoon ci suite beauté bëri na ci ñoo xam ne ñu ngi koy critiquer naan Ousmane Sonko war fa woon teg tànkam en tant que leader politique waaye ba mu koy def dafa ko woon ci tey ak bakkanam da ko defoon tout simplement par rapport à ses moyens mais par rapport aussi ak principe yi mu am ci ay entrepreneurs sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk Ndeye Khady Ndiaye entrepreneur sénégalais la kon nag Ousmane Sonko yoon la mu daal di dooleel suite boteem nga nga xam ni fa la doon fajoo te en plus Ousmane Sonko nekkul milliardaire ndax ba muy nekk biir impôt et domaine sàccul xaalisu Sénégal luubalul ay terrain deful lenn loo xam ni dafay jël alalu réew mi di ko dugal ci ay comptam moo tax ba mu fay jógee benn deux cent mille francs la fa jógee ko ba tax na moom il n'est pas riche bay dem ci ay kinési yoo xam ne dafay fay ay millions ngir ñu daal di koy mën a faj moo tax nag avec ses propres moyens day dem ca suite beauté daal di fay faju ndax moom jamono yooyu mi ngi nekk sax député waaye ñëpp xam nañ ne salaire u député am doon xaaj ñetti xaaj di ko joxe loolee nag ab leader politique boo xam ne ku conscient ci jafe-jafe ay waa réewam moom moo koy def moo tax nag ki di Ousmane Sonko dem nga mu dem Sweet Beauté d' abord tax na xaalis ba mu fay dugal dina dugaat ci keesi Sénégal jaaree ci ay sénégalais en plus de cela dina tax ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moom itam mu mën a def ay dépenses yoo xam ne du ko gaañ ndax moom sàccut fenul randalul alalu Sénégal ba tax moom muy mën a am ay millions yu muy faju jee ca bitim réew wala foo xam ne ay millions lañ fay fay fii ci Sénégal loolee mooy li ci am moo tax nag procureur war naa def autosaisine si li nga xam ne moo ñeel maître El Hadj Diouf ak la nga xam ne waxoon nañ ko ñeel dossier bii ci Sonko Adji Sarr tañ ne woon Adji Sarr dafa ëmb. loolee nag faw ñu leeral ko Sénégal yi te ñu ngi topp naan Ousmane Sonko ADN am la ñu soxla ADN boobu ñëpp xam nañ lan moo ko waral tout simplement ñaari mbir lañ ci mën a recherché mooy ñu xool ndax daa am loo xam ne ma ngi ca Adji Sarr lu jugee ko ci Ousmane Sonko wala book dafa am doom ju am ci diggante ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ak aji saar wala boog tout simplement ndax Adji saar daa am doom fekkente ne Adji saar am na doom bu boobaa jàll di seet li nga xam ne moo ñeel wàllum ADN bu Ousmane Sonko ndax moom wax doom jooju ñoo correspondre benn la loolee dina jaar yoon waaye itam bu fekkente ne Adji Sarr dafa am lu ñu fekkoon ci moom bëgg koo comparer ak ADN bu Ousmane Sonko loolee itam xel mën na koo nangu waaye waruñ koo mën a def ndax lan kii di Adji Sarr dafa am lu attesté que ne moom amut lenn lu ñu fekk ci moom te loolu mooy rapport médical bi nga xam ni docteur Alfouseyni Gaye daal dina koy def ñeel ko moom Adji saar ndax docteur Alfousseyni Gaye lam ca wax dafa leer nañ daf ne kii di Adji Sarr ñëw porté plainte Ousmane Sonko amul lenn loo xam ne fekk nañ ko ci moom luy wane nañ ci 48 heures maanaam 2 jours yi mujj am na lu mu seq ak gor kon nag loolu firnde la te daal dinay dàq ci saa si thèse bu jëm ci wàllum ñu mën a fekk ci aji saar lu jugee ko ci Ousmane Sonko beneen thèse bi mooy lu jëm ci wàllum éventuel wala probable doom boo xam ne Adji saar war na koo mën a am ndax tamit mën naa am doom ñu nëbb ko côté nekk seen dernière arme boo xam ne moom la ñuy xeexee waaye nag kooku bu boobaa bu dee lu am la dinañ ko defal test ADN ngir xam ndax dafa correspondre ak Ousmane Sonko ou waaye nag ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko du mësa nangu ñuy jël dereetam wala kawaram wala dara loo xam ne dafa bokk ci moom di ko joxe ngir ñu ciy def quoi que ce soit boo xam ne dafa jëm ci wàllum ay ADN ak mbir yu ni mel moo tax nag Sénégal gii am na fi yoo xam ne bés bu ñu ko bàyyee nii dina nekk loo xam ne dina doy waar lool dina nekk loo xam ne ëllëg dina jural ay jafe-jafe sénégalais yi te lépp xam nañ ne lenn dong moom moo ko waral mooy lu jëm ci wàllum politique. politique moo lal dossier Sonko ak aji Sarr politique moo lal lépp loo xam ni ñu ngi koy def ci réew mi. waaye nag dañoo am devoir de rendre compte aux Sénégalais dañoo am devoir de dire aux Sénégalais la vérité dañoo am devoir d'éclairer les quatorze personnes yi nga xam ni dañoo ñàkk seen bakken ci manifestation yi amoon ci mois de mars deux mille vingt et un nag nekk na loo xam ne c'est un impératif pour les Sénégalais nekk na loo xam ne lu mënul ñàkk la ndax Sénégalais yëpp ñoo bëgg a xam lan moo xewoon ba ñooñu ñëpp ñàkk seen bakken te li xewoon lenn dong la mooy une jeune fille un leader politique opposant numéro un du Sénégal que def ko koo ba tax Sénégal gi am yëngu-yëngu yu yéeme yéeme yoo xam ne amoon na fi yëngu-yëngu yoo xam ne jural na loraange fukki nit ak ñeent fii ci réew mi fukki nit ak ñeent ñooñu ce sont des sénégalais fukki nit ak ñeent ñooñu ce sont des fils du pays dont l'honneur ne peut être relevé quand seulement la vérité aura éclaté par rapport à Ousmane Sonko et à Adji Sarr loolu nag mooy dëgg te mooy li nga xam ne war nañ koo mën a prôné di ko partagé di ko waxtaanee fu nekk ngir sénégalais bu ci nekk am conscience ci li nga xam ne moom moo dal suñu am réew bii di Sénégal Sénégal nag nekk nañ ci ay jafe-jafe nekk ci impasse boo xam ne tant que génnuñu ci. ci ab vérité ci dëgg gu wér péng ak ay firnde yu leer du ñu mës a am li nga xam ne moo di affaire par rapport ak dossier bi la te il est temps ñu daal di koy évacuer ndax li Bouba Ndour waxoon rek moom moo ci nekk depuis plus d'une année ñu ñuy wax Sonko aji Sarr Sonko Adji Sarr Sonko dafa am ci leneen lu ñu ko gën a soxlaa te li ñu ko soxlaa nekkul leneen lu dul discours yi muy tenir ak itam ni muy revivifier l'espoir des Sénégalais ni muy revivifier yaakaar bi nga xam ne moom lañ am ci Sénégal ne mën naa dem ba tolloo ji ak dëkk yi nga xam ne ñoom ñooy concurrence ci àdduna wërngal képp loolee lañ soxlaa Ousmane Sonko Adji Sarr nag sénégalaise la comme tous les autres sénégalais nekk na koo xam ni bu fekkente ne dañ koo tooñ war naa mën a dem porter ji plainte lépp daal di leer waaye plainte am dafa am loo xam ne moom moo ko jeexal yàgg na lool mu di dossier médical bi nga xam ne moom moo ko ñeel bi wane ne moom amul lenn lu ko Ousmane Sonko def kon coow li jeex na nañu évacuer Ousmane Sonko dem liggéey ji Adji Sarr dem nekk ci ay yitteem loolee moom mooy dëgg loolee moom mooy yoon te ñu bàyyi Ousmane Sonko il est un leader politique il fait partie de ceux qui aspirent à devenir président de la République du pays donc il n'est pas n'importe qui il a été troisième durant les élections présidentielles yu 2019 donc Ousmane Sonko itam encore une fois nekkul n'importe qui nañu jeexal bi le dossier jël dëgg gi teg ko devant tous les Sénégalais te bu ñu paree les quatorze personnes yi nga xam ni dañ cee faatu nañ ci rendre compte Sénégalais yi situer les responsabilité bu ñu noppee kenn ku ci nekk la ci def ñu daal di jël ay daan daal di koy teg sa kaw bu ko defee nga xam ne kat pays de droit la ñu nekk pays de démocratie la ñu nekk képp ku fi def naka sulul noonu rek yet bi dina dal sa kaw mbokk internet yi safoo setaan AGT news lii moo nekkoon suñu jàngat abonné leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar ak i jàngat yu wér te wóor AGT news